te def ko du yàlla na leen ko sunu borom defal dellu siwaat nag ni ñu koy defee ni ma leen ko waxee samedi bu nekk dañuy daal di jël benn tomb waxtaan ci askan wi wala sax ci biir kër gi lépp nag dafay delluwaat ci askan wi parce que yéenee waxtaan rek ak suñuy invité ànd ko yéen itam ci téléphone bi yaakaar naa ni tey samay invité duma leen présenté euh, ci li nga xamante ni mooy kër gi ndax yàgg nañu fee ñëw Adja Maguette Ndiaye la ñu koy wax dafa am lu tax ma indi ko fi nag ndax lañuy ñuy waxtaanee dafa laal mag ñi kon ak géwal ñi surtout. Adja Maguette maa ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi nga nuyoog mbokki eh, téléspectateurs yi. waa auzu billaahi mina seytaani rajiim. laa xawla wala xawata illaa billaahi al aziim. soxna Mbaye maa ngi lay fay bu baax. di la ziar. di ñaan yàlla yàlla nañu commencé ci bisimilah rahmaani rahiim eggal ci alhamdulilah rabbil alamin. amiin amiin di nuyu sama jàmm loolu nga xam ne. ci waawoon la jógee. Mm-hmm. di ñaan yàlla yal na nu yàlla defal jàmm. biir kër gi yal na am jàmm. amiin mbedd mi yal na am jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin biir néeg yal na am jàmm. ci barke yonent bi. ndax jàmm nag fu mu fanaan mën na faa yendu. Mhm. Mhm. ndax àdduna amu solo. dëgg la waaw di nuyu ñi ci hôpitaux yi. Mhm. di nuyu ñi nga xam na leen ginnaaw. waaye di commencé sama jaal mboombe rek di ci yem. waaw waaw jaal topp. moom ngay ubbee moom ngay moom lay ubbee moom lay tëjee. d'accord waaw tekki nag sama leader mooy bokk Sadikh Kane. MDP yemale. damay ñaan yàlla rek yal nañu yàlla defal jàmm amiin ñu avancé tout ba ci kan ak sama njaboot ga ci kër ga macha allah ñëpp maa ngi leen ñaan Amine Ndiaye euh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Bokar Sadiq Kane sa leader def la mm. ni nga mel waaw euh, ginnaaw yàlla ak yonent bi ak jaal topp bu baax moom bu jaal bu ma ko tuddul dool jaal moom ba tey xaalisam a ngi ci man ba ba léegi jeexagul nag macha allah eh, bu baax na jaal bu moo ko fekk jee mu xam waaw dëgg la <laughs> jongante lay doon de euh, maa ngi lay nuyu di la bàyyi mu nuyoo mbokki mbokki kii boo jotee man la ay njaw sax nga sant yàlla euh, nuyoo la mbokki téléspectateurs yi. déggal rek yow. yaay maa ngi lay la ci àdduna yëpp di ko gi a. xanaa waat waaye yaay xanaa waat yaa woon ay di indil ma ndax da nga ma koo dig daaw ba ren. loolu amul problème waaw mais baal ma àq. naa la jeex na <laughs> lay ziar mbokk yi ñuy seetaan yëpp. di hmm. nuyu. xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ziyaar ak njabootu waa Seydi El Hadj Malick yëpp mm. di nuyu mboolem ëttu këru diine yi ne ci réew mi mm. nuyu sama yaay soxna Xadi Samb mm. di ko ziyaar ak yaay yëpp mm-hmm. nuyu nag sama yaay ju baax ji nga xam ne tey daje naa fi ak moom mm-hmm. yaakaar naa du bii moo nekk sax sunu ñaareelu plateau ah, te loolu lépp nag yow yaa ko waral moom it muy yaay ju baax mm-hmm. joo xam ni waxtu àddoo rek dina am lu mu indil askan wi wallaahi te loolu dafa doon loo xam ne lu am solo la mm-hmm. ndax euh, arab yi sax dañuy wax ni jigéen mm-hmm. école la mm-hmm. koo xam ne nag école ngay doon juraat yeneen faculté war na ngaa mën a am mandarga yu rafet yu ñu mën a compter ci yow ndax Seydina Ali dafa wax ni benn jigéen bu fakkasaloo univers yu lëm moo fakkasaloo dëgg la kon nag yar bi nekk ci kër gi te ñoom ñu ëpp ci responsabilité. Mm. Euh, suñu fakkasaloo dañuy yóbbaale foie yi lëmm. te foie yi lëmm bu demee rek yaakaar naa ne àdduna lëmm moom moo daanu. kon nag ñu ngi leen di ziar bu baax. Mm, di leen joxaat seen yéeguwaay. Mm, dama am sama benn nijaay imaam la imaam Mansour Diouf. Mm-hmm. bu sunu. maam alxaaji Lamine Diouf dafay wax ni wolof dafay war a wax ni ñu ngi lay wàcce sa wàcc ci wàññi waaye nee na moom yéeguwaay lay wax mm-hmm. waaw yéeguwaay lay wax muy loo xam ne loo am solo yaay maa ngi lay ziar di lay jégalu nag xam nga sama xarit nga te boo loolu de jeex na parce que dama laa bëgg xaritoo bi <laughs> moom moo jeex tey léegi mën man naa la maag yow bi ba ca plateau ba xam nga man sama kër gii kër la uh-huh. damay ràcc def lu ma saf lu la saf waaw man maa la bàyyi waaw mais boo amee doom doom ji tooñ la raam ni la baal ma léegi kay xanaa war nga koo baal. maa ngi lay dégg baal ma wala <laughs> loolu ci. après l'émission. jeex na amul problème. mais kon ma bàyyi la rek nga nga doxal. waaye li ma lay wax daal bala maa daa jox kàddu gi. réew mi moom ñu ngi bëgg a tos kare moom. fa jëm tey. courant bi cher na torop. diesel bi. woyofal boobu ñu doon waxal. du woyofal diesel bi mu ngi bëgg a rey nit ñi. ndox mi cher na. Mm. marché bi cher na. Mm. loo daan joxe tey bu fekkee da nga daan joxe bu njëkk yaay booy boo masaana am ñeenti téeméer dëgg-dëgg bu soxna si demee marché yëpp du matal sax mais li ngay dool du bari mais léegi da ngay yëkkati. léegi ceeb ak diwlin la ah? téeméer ceeb ak diwlin la ci kër gu yee mamaay. waaw laaj ma walaat ak genn wàll diwlin téeméer ak juróom fukk. kilo ak liibar ak genn wàll liibar ceeb. ñaar téeméer ak juróom fukk boo moytuwul. léegi léegi léegi léegi jënd dikkagul léjum dikkagul. déedéet jënd da en tout en tout cas daal yëf yi moom dëgg-dëgg moom war nañ koo seetaat. moom la ñuy waxtaanee tey. diisal googu diisal googu waaw. macha allah fa tabarkalla ndax wax nañ leen ne kër gi euh, actualité ci lay dox. <laughs> te nag euh, lépp loo xamante ne dafay laal askan wi dañuy bëgg di ci wax. te askan woowee nag ubbil nañ leen ligne bi ci 88 628 14 13 wala 00 221 33 841 23 34. mu doon ñaari numéro yi nga xamante ni moom la ñuy àndee ak yéen. Euh, fas yéene waxtaane ci loolu seeraayu dund gi waaye am leneen loo xamante ni itam ñun ñoo ko teg sunu bopp muy xeetu can yi xew léegi metti lool ba tax ma indi géwal boo xamante ni tey day taxaw ci géew xam naa ne tey jii bu génnee sax dinañ ko dóori yat wala bu génnee ñetti fan la cay def daal di delluwaat ci la mu nekkoon ndax mm-hmm. lu fi metti lu ne magum géwal yi la kenn ki sama yaay ñi nga xamante ni jiitu ji na yàlla na ko suñu borom yërëm te jéggal ko bëgg lu baax lañ ko duggloo waaye nag daf ci am loo xamante ni bu ñu demee ba tollu fenn fi dañuy delluwaat tuuti nag xoolaat suñu bopp ndax mënuñoo dëkk ci ne ceeb bi cher na diw gi cher na courant cher na ndox cher na te amaana am na ci loo xamante ni sax léegi doo ko gis jën doo ko gis légume doo ko gis courant bi xëy na coupé amatul loolu waaye ndox yi léegi am na zone yoo xamante ni pour ñu am ndox problème la te dañuy fay bu cher ba léegi ñu fas ko yéenee seq waxtaan bëgg a jël loolu yëpp nag après nag boole nag sama doom day yóbbu warugar wala damay nangul warugar sama doom am na loo xamante ni dama ko war a yebbil di sama doom yooyu itam dañ koy delloosi delloosiwaat waxtaane ko waat ñu war a mën a delloosiwaat suñu xel comme ni ko waxtaane woon euh, ci bii passé euh, ci mbirum anytime njaw nga dugg léegi ci wàllu oyofal mhm. euh, maa ngi nuyu bu baax a baax sunu concert Umindour Umindour je crois noonu la tudd Umindour waaw Umindour da nekk waa Tëngéej comme man macha allah mu ciy def liggéey bu am solo boo xamante ne dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla sàmm. ba mu yeggale ak sagoom. Mm-hmm. mu wax que ne euh, ñu bari sax. Mm-hmm. plateau yëpp ñu ngi ciy wax. woyofal bi tuddatul woyofal diisal la diisal la tudd. Mm-hmm. yow Ndiaye da jàpp ne li nga daan jënde ak léegi li ngay jënde dafa am différence. maire dafa am différence bu bu bari gis nga fi mu nekk nii weer wi. su xisee day le premier ba le dix. loo jënd. Mm. mën naa mën naa. mën naa normal. Ah, période boobu ngay jëndee le premier ba le 10 période boobu waaw le premier ba le 10. waaw loolu la bëgg a wax ni la foofu. Mhm. dina xaw a comme bu mu tuddee woyofal. d'accord dafa xaw a rek sax normal delluwul ci bu njëkk. mais gis nga le 10 bu xisee passé. le 10 bu passé non bu xisee passé yaa ngi bëgg a tuskare. ñu dimbali kooku ci ligne bi. ñu jël ko ndax da yor climatiseur di ko taal pare bëgg mu woyof. Mm. mbokk allo. <laughs> naa temps yi da ngaa fuuy de allo. allo waaw. salaamaaleykum mbokk. maaleykum ñu ngi lay nuyu di la ziar bi ak fooy woote. man maa. ah. man man maa ngi wootee Kaolack. Gabon. Kaolack Kaolack Kaolack Kaolack. Kaolack ay ca da ay sa participation yow rek la ñuy déglu. waaw émission bi am na solo lool. merci beaucoup. li ngeen wax dëgg la. Mm-hmm. xam ngeen ne temps yii mi dafa jafe dafa dafa dafa dëgër. dafa metti waaw dëgg la allo Kaolack voilà maa ngi nuyu waa Kaolack yëpp waa Saloum waa Kaffrine di leen bëggee euh, Pa Diop ma nga fa euh, Mara Kaffrine laa ko tuddee maa ngi koy nuyu di ko kontaane jamono bi mi ngi fii ci diwaanu Maris maa ngi koy nuyu bu baax a baax di wax ne def leen ni moom ngeen dugg indi li nga xamante ne mooy seen xalaat euh, ci réew mi courant beeg ndugg meeg dund beeg yooyu waaye tam can yu cher yi mm-hmm. njaw nga nga ne nga ne nga ne nga ne à du premier ba le dix ba le dix moom mm-hmm. boo jëndee par boo jëndee cinq mille francs mm. dañ lay facturer deux mille deux cent loolu lañ lay facturer te loolu nag mille yanam. 3200 yi doo xam fan la dugg doo xam fan la dugg franchement courant bi moom war nañ ko seetaat parce que itam dafay créer benn misère sociale boo xam ne ci société bi parce que maire bu njëkk nit mënoon naa dund sans courant mais àdduna moo avancé léegi waxuma la sax ci biir taax yi. Mm. mais léegi boo demee ci. village yi ci biir Sénégal. lu mu sori sori mbay mi bu jaaree yoon dëgg courant daf ciy jaar. courant da ci participer. mais bu fekkee ne ni loo liggéey nag. Mhm. bu weer wi de nga yemale ko ci courant. dëgg la ndox ndox ñëw doggali la. Mhm. dépense su kër gi soog a ñëw doggali la. Mhm. ak yeneen imprévu yi am. ci biir njaboot. da ngay am njaboot feebar day ñëw feebar kenn du ko programme bi day ñëw ordonnance yi cher lépp cher loolu état bi war na ci war na ko xoolaat te tamit courant bi état bi war na war na ci def lecture bu am solo xam ni Sénégal yëpp ñoo yooxoondoo est-ce que dégguma ñu ne subvention bi nga xamante ni moom la ci defoon subvention boobu moom la dindi moo tax courant bi cher. waaw mais subvention boobu nag état bi waru ko dindi. Mhm. ndax li tax waru ko dindi war na bàyyi xel population yi nga xam ni tey. ñoom ñooy consommé te lu man ne amit consommateur yi ñooy dee rek. surtout góorgóorlu bi mel ni man. da ci doolee état la doon dund allo. <laughs> barki yàlla sama sëriñ maa ngi lay ziar. allo yaay booy yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. man maa woote woon léegi mais affaire bi dafa mujj dagg quoi. d' yow rek la ñuy déglu. maa ngi jégalu ci ci dérangement bi ak en fait. non non wu ñu émission bi seen émission la. waaw ma ne euh, comme ni ngeen ko waxee rek. Mhm. léegi réew mi dafa xaw dëgg dëgg la. xale yu jigéen ñi léegi dañoo xaw a exagéré en fait comme comment ma dire. côté can yeeg yooyu. fekkee noonu laa koy waxee. dëgg la. léegi da gis nit koo xamante ne day day lu tuut lay doon mu ne day ay li li ngeen di wax nii rek ay anytime. Mhm. di sonal seen waajur te billaay walaay seen waajur yi suñ dara. wallaay ndeysaan. te tamit instant bii amul xaalis amul liggéey. Mhm. xale yaa ngi jël. gaal gi di dem rek wallaahi ñu ngi jaasi yoonu yoonu xaw ma xaw ma yoonu la Nicaragua billaay mhm. dem di ñàkk seen xaalis ay ay douze di ko ñàkk si zéro dëgg la mais Sénégal en dafa amul loi foofu mhm. laa ko mën a waxee comme que yaa ni chargé douze millions diggante bi ak foofu boo demee ñu retourné waat la. ndeysaan. loolu du yoon. dëgg la dëgg la du yoon kay. di wax si monsieur le président di wax di sànni kàddu si monsieur le président. Mhm. mu yërëm jeunes yi. ñu yërëm leen dëgg la. merci beaucoup ñu ngi koy jaajëfal di jaajëfal waa Kaolack yépp ma cëppeelu ba Mbuur mm-hmm. jaajëfal ki nga xamante ni mooy Seydina Mouhamed Doucouré ci kàddu yu rafet yeeg ñaan yi ci man Doucouré maa ngi lay nuyu bu baax a baax sama góor sama xarit sama lépp di la ñaanal jàmm yàlla na nga fi yàgg loolu te wér Adja mm. Maguette yaakaar naa ni ñàkkul loo ci mën a mën a sànni ndax jaboot nga yaa ci sa biir kër gis nga woyofal bi ni muy demee est-ce que yow sax mm. ci compteur yu njëkk yi amoon naa ci mais dama dama mujj jël oyofal parce que nit ñi noonu lañ leen naxee dafa mel ni nax la wala wala quelque chose comme ça non nga mbayang waaw àdduna mm. ni mu ñëwee rek lañ ko xam nga tàngooru reen musu fi am dëgg la d'accord mën naa ñoo ñaan. Mm-hmm. yàlla teggil nu nattu bi. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo mooy gouvernement bi dimbali nu. Mm-hmm. ci kàttanu yàlla. mais tàngaay wi am ren musul am. boo yoree clim. yor ventilo. yor congélateur yor frigo. comme ah yor yeneen ak yeneen ay appareil yoo xam ne courant lay jël. soo de xoolaatee sa bopp di nga xam ne li nga lakk bari na. dëgg maire mën naa ñëw foofu tuuti bala ngaa. may ma tuuti rek waaw daanee ne waaw. seen débat la yéen a suñu débat la ma ak yow. parce que lu lu met lu dagg moroomam lay fekki. moom lay te dañ ne accident yi wax a ci gën a garaaw ñun lu tax ñu ne na débat ba tëdd lañ koy constaté. Mhm. te plainte bi wax kenn mënu koo retiré. déedéet mhm. kon dinañ ñaan mais dinañ yedd suñu bopp. dëgg la dund bi seer na dëgg la. Mhm. mais yàq gi bari na gis nga bu nu nanu nanu nanu xoolaat sunu bopp yaraat njaboot gi mhm. yaraat sunu bopp mhm. bu dee ci wàllu can yi waaw gouvernement bi def ci dara déedéet ñun ñoo ko def ñun parents yi mhm. te ku la gën a néew can moo la gën a barkeel mais yaay boobu man nga maa may bala ngaa kon dugg ci can yi ci courant bi rek damay damay baras ci ko génn ay ca waaw ci affaire courant bi laa jëm waaw courant bi métti na dund gi dund gi seer na jën amul lëjum amul mais léegi lëjum am incha allah ndax. ñi daan napp jën yi kat dem nañu. wa voilà gaal yi. xam nga comme gaal yi suñu doom yi jaay nañ ko ba noppi dugg nañu ci gaal yi jot a forkus néew dugg nañ ci gaal yi dem xale yi dugg nañ ci gaal yi dëgg la mais xale itam dama leen di conseiller mhm. ku ci am deux millions mhm. wala am quatre millions mhm. toogal nga liggéey sa réew dëgg parce que fa ngay dem xamaloo fa fekk te dëkku fa dëgg la li ngay bañ fii moom ngay fekki fële soo demee yaa ci marché bi soo demee yaa ci géej gi te doo ko def Sénégal. dëgg la yaa ngi raxas ndab yaa ngi sànni màgget ak sama 3 millions. Mhm. du ma ko jël di ko def ci gaal gi xaw ma dinaa dund xaw ma dinaa dee. Mhm. te ku la ne kaaju dem nag ci gaal gi rey na la. Mhm. ndax capitaine ni gaal gi ñu nu tudde capitaine. ñu bare ngi ci kaso bi waaye wala ñu bari daw nañu. dëgg la ah dëgg la kon bu ñu yaree njaboot gi jur leen ba pare teg leen suñu wet. nañu waxtaan ak ñoom. d'accord dund bi seer na njaw dund bi seer na. lool lool. Adja Maguette constat laa def dama toog ma ne. bu njëkk ba walaat diwlin ñaar fukk ak juróom la woon amatul waxoon nañ ne dañoo wàññi dund bi mais état bi na xam ne walaatu diwlin ba léegi mi ngi ci téeméer jógu ci waaw voilà litre bi yaa ngi jëndee deux mille wala deux mille deux cent ci yenn zone yi mooy li may wax rek walaat bi cinq cent waaw kilo ceeb téeméer parfumé téeméer ak ñaar fukk waaw ñaari kilo ñaar téeméer ak ñeent fukk nga jënd benn walaat diwlin ak genn wàll walaat téeméer ak juróom fukk bari na daanaka muy ñeenti téeméer yu manque fukki ci góorgóorlu bi te ay jaboot lañu bari na metti na bari na te xale yi amaguñu ci lu ñu jàpp c'est ça xale yi dañuy góorlu te nit ku nekk nit ku nekk sa yaay lay sàng sutura dëgg la muy góor muy jigéen mm-hmm. ku daw ci sa pooju ndey ngay tëdd dëgg la dégg nga jamono metti na la doom di tëdd jamono dëgg la jamono metti na mm-hmm. kenn werantewu ko mm-hmm. ndax la amoon amatul déedéet lan daan lekk sax amatul baa boog boo ko dee lekk di nga ko rusa lekk nit ñi di la gis dëgg la da ngay tëj sa buntu wala nga jëm ko partagé ak ñi nga ñi nga nekkal. dëgg la wala nga partagé ko ñi nga xam ne ay dëkkandoo lañu. dëgg la loolu nag bu ko yàlla dogalee. Mhm. ñun nañu xam suñu suñu wareef. Mhm. wàññi gaspillage. gaañu gaspillage bi waaw. wàññi ko bu baax. non fi moo bëggoon a duggee mooy. maire dañu déggantewul ci benn côté. li mhm. muy wax ci wàllu yàq. dëgg la. mais loolu beneen aspect la. ñun ci li ñuy wax ci côté courant bi côté facturation la ñuy wax. waaw parce que nit ki jël ñaari junnim jënd ko. bu jëndee ñaari junni ñaari junni la war a lañ ko war a jaay. mais boroo jël sa ñaari junni ñu jaay la. junneeg ñeenti téeméer. sa hmm. mille kenn xamul fu mu dugg. problème boobu la consommateur yi am ak waa Sénélec. ba pare Sénégal man maire am na loo xamante ne dama ko gisul. wala important sama xaw ma ko ci société mooy. association consommateurs yi. situation bu mel nii bu ma bu amee. doo leen ci dégg. te lii nga xamee ni moom mooy affaire courant affaire ndox mu concerne société bi yëpp. loolu moo war a gën a nekk politique bi nga xamante ni sénégalais yi war nañ ko mëne. ñun ñëpp ñu jàpp ci fexe état bi subvention yi boobu ñu waxoon ni dañ ko dindi. ñu dugalaat ko parce que gis nga lii bu bu demee ba continuer xol yu tàng rek lay indi. mais subvention bi est-ce que jàppaloo ne état bi dafa jàppee ne comme par exemple mi ngi waaj a jeexal euh, subventionné woon subventionné na woon. te terewul ñu ne deful dara. waaw kon mu téye loxoom. non non état bi amul droit ci téye loxoom. amul droit parce que état continuité la. même président Sall bu fi jógee tey. Mm-hmm. keneen ci fii ñëwee li li Macky Sall woon. Mm-hmm. ci loolu ci lay sukkandiku moom. pour mën a pour mën toog xool yeggale. li nga xam ne magis Sall defu ko woon mooy ay faay mu jëm ko yeggale pour réew mën a avancer. d'accord parce que réew. Mm-hmm. courant daf ci am solo. su ñu mhm. demee tey ba ñëpp di yuuxandoo. Mhm. ku ci nekk facture ba nga daan jot soo dee jot facture cinquante mille léegi yaa ngi jot facture cent cinquante mille bien que maire wax na ni tàng na. tàngaay bi ñëpp a ko jooy. ku ne xam ne yi nii tamit tàngaay wi moo tax fi mu nekk nii. Mhm. même climatiseur ki ci mënul dara mi ngi daw di ko wuti. parce que boo sa néeg boo ci duggee boo amul clim ñi ko amul ñi mel ni man ñu ci bari dinañ yàgg trop trop ci biti. comprendre yori kaay wala nga sang lu man ñett yu ah, dugg ah. xam nga loolu nag loolu nag état bi état bi war na ci jàppale askan bi li nga wax man d'accord naa ci man kilim laa yor mhm. mais damay damay taal kilim taal ventilo géer bu ma taalee kilim taal ventilo bu kenn duggee waaye man kon li ma neex pourtant loolu kilim taal taal ventilateur gaspillage la gaspillage la gaspillage la man xam naa ko mais est-ce sa état oh, oh, si parce que man damaa ragal tàngaay. non xam nga clim bi clim bi boo boo clim bi parfois bu tàngee yenn tàngaay yi. Mhm. léegi fraîcheur am day wàññeeku. waaw loolu moo tax ñu bari léegi léegi bu ñu taalee clim bu ñu amee la ventilateur ñoom it daal di ci kos tuuti benn un bàyyi ko moom muy dem. waaw naam tàngaay yu métti yi egg na foofu loolu nag ku ko def itam. Uh-huh. bu sa facture yokkoo yaa ko yóbbee sa bopp. mais yow li nga wax sax damaa ñëw ci loolu. Uh-huh. Mhm. parce que nag xam nga doole lay ndox. waaw uh-huh. dul borom kër yi di njaboot gi. di njaboot mhm. te am na luy dagge ci euh, facture yi. mais man naa xaj ci njaboot ci njaboot ndax feebar a ngi ñëw. waaw leneen a ngi ñëw. Mm-hmm. Mm-hmm. dépense yu bari yaa ngi ñëw. école bi gan mu ngi ñëw bett la. Mm-hmm. école baa ngi ubbi fourniture yu xale yi. fourniture yu xale yi ak fay ah. weer bi. métti loolu te dafay métti. mais boo dee fay location di ju boole nag. day gën a métti te lay gën a métti. day gën a métti mais li ma wax man li ma wax li nga d'accord naa ci li nga wax. ci affaire facturation bi. d'accord naa ci ci li ñuy wax ci li ñu jëm. ci affaire parce que may ndax ma daf ma jox noonu. waaw ni ma dangay taxaw ci géew yi dañuy laaj lu mat. waaw gi naa ko ci yonent bi nii. sallallahu alayhi wa sallam can gu gën a tuuti moo gën a baax ci sëy. moo gën a baax ci sëy. waaw parce que can yi fi dégg rek mu rëy. Mm. sëy bi du am juróom-benn weer. d'accord mbaa bu ko amee am na ma mu rëy mu am. Mm-hmm. te can may gu jëkk may gu dëkk moo ko gën. ki ñëw may la ay million mm-hmm. soo demee kër mu toloxal la. waaw wala mu may la ay millions. soo génnee boo ko ne jox ma nanga mun la aw ma ko mhm. parce que toujours mu ngi xool ci may gi mu la may dëgg la dalaa jënd waa te te alxuraan lu mu wax nee na boo dem boo dematee ba mënatoo sëy mhm. waxul can gën la may de mhm. mais paquetel li mu la may nga delloo ko nga delloo ko ko d'accord bis boo ko ko delloo am nga droit ni ko ñibbi naa suñu kër pare ci moom nga sumee ko kon loolu jarul jën jël ay million di ko téye la ah dëgg la li am importance mooy can gi sëy bu rafet bi may gu dëkk gi mhm. moo gën may gu jëkk mhm. parce que may gu jëkk dana garaaw te mhm. may gu dëkk du fa taxaw dëgg la kon ñun parents yi man ak yow ak keneen bu ñu joxe njaboot gi nan leen joxe ci condition yu wóor ndax ëllëg nangu kaay tax dëgg la ndax ku may sa doom ku ko mënta yor wala ku koy mitital da nga koy jëli da koy jëli bu baax te boo koy jël fekk nga lekk million jàmbur. te fekk na jaboot na fa. mais doo doo xam foo noo koy def sax. dëgg la doo xam noo koy def. dëgg la kon nañu delloo suñu bopp te ñaan. Mm-hmm. ñi ci kaw ak ñi ci suuf. Mm-hmm. ñu dimbali ñu. bu dee na waaw bu dee mm-hmm. dee ndox mi. dund bi yàlla moo ko yor. ni nga nawet bi bu jeexee léegi léjum bari. léegi léegi mu commencé waaw jën yii. ah ñu dimbali ci ñu koy napp di ko yóbbu. ñu bàyyi noog jën yi ñu jaay waaw ñu bàyyi noog jën voilà 88 voilà. 628 14 13 mooy numéro yi nga xamante ni moom la ñuy àndee ak yéen wala 00 221 33 841 23 34 su ko defee rek ngeen rotal seen xalaat ci li nga xamante ni yëkkati nañu ko tey muy ñaari mbir yoo xamante ni euh, dafa euh, mel ni ñoom ñaar mën nañ leen a boole benn benn thème. ndax bu fekkente ni dañuy jooy dund bu cher bi te bis bu yàlla sàkk. ñuy gis diw may na ko pariru or may na ko oto may na ko fukki million ak nangam may na ko 30 million may na ko fanweer yooyu ñu gis ko di ko génne xale yi yaakaar ne loolu mooy àdduna ah. wala sax nga xamante ne am nga sa doom mi ngi ci sa biir kër sëyeegul nga dem ma damay laaj waajtaay damay laaj ay warugar donte am na doom waaye nag nañ ma ko ruyal ruy boo xamante ne bu ma jàkkaarloo ak ñoom ñu xam ni jàkkaarloo naa ak ñoom loolu suñu mbokki ñii nga xamante ne mooy ñooy géwël yi ak ñeeño yi dox ci biir géew yi ci yooyu la ñuy dox te yaakaar naa ni réew mi tolluwuñu foofu tolluwuñu foofu pourquoi parce que tey jii na ma nit wax yaaboy kañ la gëj a jar ñaar fukk yaaboy bii ñun dañ daan toog suñu buntu kër euh, te Tëngéej ci buntu kanaal bi dañuy toog xale góor yi romb ak seen seen seen seen buum buum bi dañ koy dañ ciy am na nuñ koy nasee ci bopp yaaboy bi yor ko di dem boo nee grand ma yaaboy mu ne buddet buddet ñetti yaaboy ne la wur yaaboy boo xam ne ku la ko dóor nga daanu 4 hmm. mètres nga nga dem géej boo taxawee ñu ne la siwo bi ñaar fukk lay jar parce que xam ku ne xam na ni tëngee jëkk Yoof ak Ngor ak yooyu dëkk la yoo xamante ni géej gi jege na la. ak waaw dañuy jékki-jékki ñun bi ñuy nekk xale. amul bi ñuy nekk xale sax boobu dëgër nañ ba yor suñu taaw wala dara. Mhm. mais dañuy dem géej bu ñu demee fekk fa paan bi ñaar fukk paan bi ñeen fukk wala téeméer. Mhm. siwo bi mooy jar ñaar fukk. waaw nga ñëw boo reyee sax ñu may la siwo boo ñëwee gangar gangar indi seen kër dinañu marimar dinañu keccax danañu lakk danañ def lu ne bu ma nee Marimar sama xel lay daal di dem ci Satu Njaay maa ngi koy nuyu bu baax a baax euh, yaayu Fan Mbakke ñun ñëpp ñu àndandoo xam ne ya tey jii yaaboy bi boo amul 400 doo ko am. sabal lay doon sax. Mm-hmm. boo amul téeméer doo ko am. te yaabooy boo xamante ni ni baaraamu sànq lañ lay toll ba pare nooy nepp kon yaa problème ci yàq boobu nga xamante ni ñu ngi koy wax waaye nag réew mi toll na foo xamante ni du jamono yàq ndax metti waay. waaw maire gis nga réew mi nag. Mm-hmm. ginnaaw bu du euh, courant bi cher rek dund gi metti yëpp. Mm-hmm. société bi am nañ ci responsabilité. dëgg la ci ñaari yëpp maire mi ngi koy wax léegi ci côté can yi. côté can jigéen amul njëg. loo ko mën a jox yelloo na ko. yelloo na ko waaye nag dafa am condition. condition bi nga xam ne moom moo am. Mhm. yow mi nga xam ne tey yaa jël tey 2 millions wala 3 millions ak palido or ak ya ca des. Mhm. jox ko sa jabar. Mhm. d'accord mën nga ko mën nga koo def. mais man benn rek laa ci d'accord. mooy def ko ba pare di ko wane mel ni kuy naqaral ñeneen ñi. Ah, te yow mi ko def. ci sa yow mi ko def fii amul benn famille boo xamante ni tey. man ngaa ama am ba ci sa biir famille te doo gis ci koo xam ne bu añee du reer dina am problème mu location bu feebaroo am problème mu ordonnance loolu ñi yàlla may dara ñëpp ñu am ko ku ci ne am nga mbokk moo xam ne mosoo koo defal dara te yaa ngi jël sa xaalis di ko may wala nit ku baax koo xam koo xamante ni xam nga ko xam na la mu ñëw yoot ndànk ba fekk la fa nga nekk diis la soxla nga gànt ko soo paree di pukkare dara ci biti wala nga jaay ko voilà na fi léegi daf ma doon nangam nangam du ma ko may dafa yaakaar man ku ma ko waxoon ne kii dina diis soxla ma weddi ko loolu yàlla nga yàlla nga xam nga loolu man mooy ci sama problème waaw mais bu la neexee takkal sa jabar may ko un milliard mais nan yem ci seen diggante may ko sa sa li nga am yëpp sa waaw li nga am yëpp bu la neexee nga jël ko yëkkati ko loolu sa diggante la ak sa jabar mais bu mu génn ci penc bi 88 la 628 14 13 mbokk allo allo allo salaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah Euh, soxna Mbaye ñu ngi ziar. ndax nu kazaalika mbokk tur bi ak fa wootee. maa ngi wootee Thiès. yaa ngi wootee. Thiès Thiès Thiès ñu ngi nuyu waa Thiès yëpp ayca bisimilah. ok man euh, man li may li may laaj est-ce Sénégal man Sénégal bi ma xamoon ak Sénégal léegi est-ce que benn la. ah man de xàmmeetuma ko man. ndax nag lu lu bari nag waxkat yi ñoo ko def. Mhm. lu bari wax yi ñoo ko def. Mhm. te lu ñu dal ñun ñoo ko teg suñu bopp. Mhm. ñu daal ñun Sénégal ñun ñoo ko teg. ñun ñoo ko teg suñu bopp waaw. Mhm. waaw surtout tamit yéen yaay yi. yëkkatil kàddu gi tuuti sëñ bi ma ni ma ni surtout yaay yi. ñun yaay yi ñu na di. ñun yaay yi ñun la de barki yàlla ñu na. kese. lu leen lu ñu dal lu dal dina si la yàlla. dëgg la de boo ko waatee doo lakk de mooy càng yi ngeen di wax ak mooy. kese géej bi ak bi yëpp yëpp la. dëgg la ñun la dëgg la. ndax yéen a teg ñun ñun SONES yéen ñuy lu métti. dëgg la. waaw loolu tamit mooy loolu. gonek Séné gonek Sénégal di bëgg sa doom yorul dara nga gis tubaab bu xonq coy yor àddina ak li ci biiram can nga tax nga may ko ko bàyyi doomu Sénégal bi ñun la. jaana tax ñun ñun tey boo bëggee soxna balaa nga ciy jot nga taw barki yàlla dëgg la pour la waaye nag tamit nag. pour la nañ ci waxtaan ci loolu rek euh, jàppalante. incha allah incha allah. dañu jàppalante ci loolu te waxkat yi wax ñu war ci wax noppi. dëgg la. Sénégal waxkat yi ñoo bëri te waruñu wax. dëgg la. waaw lu ma am abitaan wax rek. Mhm. soo buggee wax dëgg. bañ a fen. wax war wax nga wax ku ko war waxee. dëgg la ak ñi nga ko war a waxal. Mhm. waaye ku toog rek ku yor micro rek du bugg wax. dëgg la. loolu tamit dem mu ñu kanam quoi ñoom dox ñu dem ci kanam. am na solo. Ah, am na solo kontaan nañ bu baax ci participation bi am na solo. gis nga xale bi li mu wax yàlla nañu bokk ci ñi nga xamante ni ñoo war a wax. amiin li xale bi wax. macha allah dëgg la wax. Mm-hmm. dëgg la. parce que ñun. Mm. ñoo yor doom yi. waaw gis nga ba ci tukki bi ñuy tukki. waaw da ngay gis tekki oram. waaw jox njàbb ne ko demal. jox doomam. pour lan pourtant or boobu boo ko tekkee. dëgg wutal ko lu muy jaay. Mm-hmm. wala nga ubbil ko butig walla kii. Mm-hmm. xale bi na ci mën a nekk. déet or bi nga am sax yow bougé woo fen voilà jàngoo te fexe nga ba am or ba voilà ba am or parce que man nee naa leen fi samay waajur dëngal naan damay fexe jaar fa nga caatu boo nga am ndox merci waaw léegi xale yi bu nu bëggee soxna mm-hmm. benn affaire moo am mm. bala nga am soxna mm. na nga ko mën a yor nag dëgg la ndaxte ñu yorul la soxna tamit dafa difficile mm-hmm. la may ute soxna pour takki ko waaw dinaa dem uti lu ma am ba bu bon bu ma nit day jàppale. ma jàpp ca. dëgg la. parce que xam nga jigéen lu ma la yebe. te daf noo nekk sénération boo xam ne. Mm. bokkul. bokkul bokkul. mbokk ngi ci ligne bi xam naa ni thème bi ñor na leen. Mm. Mbara jërëjëf maa ngi lay kontaane di kontaane ngaay jërëjëf ba allo. asalaamaaleykum. waaleykum asalaam wa rahmatulah. Tamba yeeg maa ngi lay nuyu. doom booy maa ngi lay fay. man nag damay oote juste pour wax ci nga xam ne moom la invité muy Dame Maguette Ndiaye. waaw xam naa su ma waxee ba pare ma wax ci kan la. ndeysaan. di la wax ne que invité nga nit bu am valeur. ndeysaan. invité nga yaay bu mat yaay goro bu mat goro ci ñun li gis dëkk ak moom amu ci. ndeysaan. di la wax ne tam bi invité nga ci koo xam ne mën na ci wax lu bari. dëgg la te mën na jëriñ askan wi. dëgg la. Dame xam nga man mu ne ma wax man la Ndéla bu Fama Diagne. ah Ndéla waaw ndeysaan ok man cee <laughs> ndeysaan man nag da may xaw a jooyloo tuuti Ndella kontaane naa la de macha allah jërëjëf Diagne man kontaan naa rafet na xam nga bëgguma sa xale yi seede ma ndeysaan ndax day daal yëkkat sama xol dëgg la mais li ci sama xol yàlla xam na ko dëgg la billaahi wallaahi mbayang waaw àdduna dafa demul fenn dëgg la àdduna jarul dara gis nga nit ki jóg mm. ne la man de damaa am nangam mm. billaahi bu ma amoon xale yu góor yëpp laay takkal jabar ndeysaan te it bu ma mënoon a waxtaan ak yaay mm-hmm. dara lu ñaaw du am ci diggante yi. dëgg la mais am na ci joom ñoo xam ne gi nga xale bii di wax. Mm-hmm. xale bu am valeur a ngi nii. xam naa valeur bi yaa ngi ma ko ji jiñ waaye yaa ma raw. ndeysaan. yal na yàlla barkeel la. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla taxaw la ci barkeel yi. amiin yaa rabbal aalamiin man amoo gi ma dëkk. Mm-hmm. dama dama am fierté ci ñoom. dëgg la amul si yëpp nag. Mhm. yëpp fu ma génn. Mhm. damay xam cofeel gënu am ci man ban cofeel la. dëgg la muy góor di jigéen di mag di ndaw. dëgg la ma leen di ñaanal yàlla di leen ñaanal jàmm. ndeysaan amin noonu la waa Kër Jaal mel ci man gis nga barki dem bi ñu demee ngéntal affaire géwël yi ñi nekk Paris sax billaahi wallaahi dan ma doon yónnee xaalis fi ma toog ñi nekk Paris ñi nekk Paris xanaa xamuñu sama numéro nga xam ne ankay xam nañ ko te ay doomu Jaal lañu nañ ko teg foofu ba tàggoo bi ndax tàggoo bi dinaa leen may 20 minutes ngeen tàggoo parce que ay géwal ñu daxa tàggoo <laughs> ba doyal ñu daxa tàggoo laa invité ci plateau bi <laughs> moo tax dañuy wax ci thème bi nañu xoolaat suñu bopp ci thème gis nga can nga xale bu góor bi li mu wax na lépp ñun la dëgg la dama ne bu dee fukk la juróom-ñett yëpp ñun jigéen ñi la dëgg la surtout nag léegi dem nañ ba dem bi jigéen ñaa ngi ci boole seen bopp di dem di dugg ci biir gaal yi. tey rek am na jigéen ñu décédé. gis nga di fa gis gaal gu teer. voilà di fa naka su noonu. Euh, nañu toog te xaar góor ñi comme góor ñi nee nañ dañuy dem nañu toog te xaar leen. wax dëgg yàlla xam nga mhm. xam nga dafa am. Euh, fu mu méttiwaayu jamono bii ñuy waxtaanee tey nag. Mhm. xam naa ni bokk na ci li nga xamante ni moo leen ñuluk ba tax ñoom ñëpp ñu dem te ah ah du noonu nañu tey rek. xam nga xam nga maire méttiwaayu jamono bi. waaw dëgg la ñun ñëpp koy dund. Mhm. waaye nag dafay am benn moment bu jotee. nit ñi ñoo war a toog ànd ak seen xel te ba ñuy jiital xol yi. ndax nag. àddina bi. Mhm. lépp loo fi mën de am itam. bis mhm. day jot nga bàyyi ko fi. nga bàyyi ko fi kon jarul dund. jarul xaru gis nga gaal yi. tukki kenn terew ko kenn. da nga ne àdduna bi da ngay toll foo xam ne ah. bis dina ñëw euh, xaw ma di nga dem bàyyi ko fi. waaw. doo dem bàyyi ko fi sax dafay ne te dootoo ci man dara. te doo ci man dara. merci te te xam nga ñi nga xam ne ñooy dem ci gaal yi. Mhm. naam jamono metti na ndax ku nekk bëgg ngaa tere sa bopp tere sa wëyju. waaye nag dafa am loo xam ne xel a ko gën. dama mës a dégg ci Serigne Cheikh Tidiane si mu wax lu am solo daf ni. Mm. fa lépp am. Mm. ku fa sonnul doo fa am dara. Mm-hmm. dëgg la te ki góorgóorlu fii ci réew mi. Mm. ba takk ñetti millions. ñeenti millions ba ba dix millions. ngir dem ngir dem bitim réew. waaye ah. waaye loolu ku ko am boo ko defee fii man fee man ndax na nga def ba am juróomi millions. Ah. boo ko defee war di nga di nga amaat yeneen fukki millions ba tànn kenn. parce que bari na ñu nekk bitim réew tey lépp lu ñu indi fii ci réew mi. ñu ne ci réew mi ñoo leen koy delloo. dëgg la bari na yow tey ay usines yoo gis mu ne ci réew mi nit yu nekk ci réew mi moom ko tu musuloo génn réew mi léegi pourquoi ñun ñu bëgg a weddi suñu bopp itam jàpp ni lépp lu ñu war a mën a am ci nit ku weex ki moo ñu a jox loolu yi tamit problème la il faut ñun tamit ñu gëmaat suñu bopp mhm. surtout ndaw yi toogaat xoolaat suñu réew mhm. a def est bu fekkente ni ñun ñëpp bu ñu dawee léegi kan mooy résoudre problème bi parce que bu ñu demee tey ba tey yaa ngi dégg ci rajo yi tey ñu ne tefes gi amatu amatudu xale bu napp mool amatul jigéen ñi léegi bokk nañ mu dem ba nekk benn fene benn fene boo xam ne loolu problème la 88 la 628 14 13 mbokk asalaamaaleykum waaleykum salaam soxna si tur bi ak fooy wootee Tata Mbaye ñoo ngi lay nuyu doom booy fay naa la bu baax a baax di nuyu ñëpp ñuy toog ci plateau bi ñu ngi lay fay

bëgg ñëpp. dëgg la walaay dëgg la. ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla lafal cat. amiin amiin yaa rabbal aalamiin yàlla sàmm leen yéen ñëpp yéen ñu toog ci plateau bi ak suñu tonton boobu aussi. ñu ngi leen di tur bi naka la ñu ngi bi naka la. Aji Yaasin la. Aji Yaasin Aji eh, yaa ngi jooyloo meer ah. <laughs> yaa ngi jooyloo meer te meer dafa sañse. Aji Yaasin da ci nekk. Aji Yacine maa ngi koy kontaane bu baax a baax di kontaane njaboot gi yëpp waa amoo yëpp tabarkalla macha allah lii dafa neex. Mhm. Euh, xale yi dañ ko yëg. dañ ko yëg ah parce que bari na lu may invité Adja màgget mhm. mais mu tollu dimension bi moom euh, yombul lool donc euh, xale yi ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax. Mhm. di kontaane képp koo xamante ni yaa ngi toog jàkkaarloog ñun di ñu seetaan. Euh, jamono bi dafa metti dafa doy waar góor ñaa ngi dem jigéen ñaa ngi dem mm-hmm. ndax njàmbat li ci nga xamante ni dafay jóge ci way jur yi dem ci nopp xale yi la am déet waaye am na ci loo xamante ni boo ko tegee sa way jur defe naa ni toog ngeen di ñàkkandoo moo gën mu ñàkk laa gisati ba faw yaakaar naa ko de donte nag lu sunu borom dogal ci doomu aadama bi dafay dafay daal di am mais njaw dafa mel ni dama jàpp ne dem maa ngi ciy waxtaan ak sama waa kër mm-hmm. ma ne est-ce que est-ce que ce que géej gi nekkul di sarax waaw géej gi parce que nag li muy jël bari na <laughs> non mais mais. mais da ngay gis ku départ euh, Casamance. Casamance kii euh, kii jam ñaajo. mais mais maire loolu loolu dëgg la géej gi. lan mooy problème bi songe. gis nga gis nga gis nga gis nga sànni baat yi tamit. waaw léeg-léeg dina ñuulu xale bu amul xel. waaw dëgg la. parce que xale bu nekk ci kër gi. toll ci diggu dooleem xëy na la mu war a man manu ko te heure bu dee añ dégg kàddu gu ko jaral gàddaay kooku nag su gisee leneen lu mu def dina ko def il faut yi tamit mm. yenn yaay ñu may jàmm xale yi mm. xam ne yàlla moom mooy joxe am am mooy joxe ñàkk-ñàkk donte nag xale yi nañ toog ci réew mi te gëm ko voilà dafay am solo mbokk asalaamaaleykum allo allo salaamaaleykum waaleykum asalaam wa tata Mbaye ak noo def. doom booy sant yàlla man tey samay doom rek ñëw dugg. waa dañoo macha allah participer bi. yaa ngi en direct ñëpp ngi lay dégg. waa goro Adja Maguette Ndiaye laa. gorom de. waa Yacine kontaan lool. ndeysaan. waa yaay du goro sax yaay la. dëgg la. waa yaay ju baax ngeen teg foofu. ndeysaan. yaay ju am personnalité. ci yow la rek. yaay ju am dignité. ndeysaan yaay ju bëgg ñëpp bëgg ñëpp. yaay ju ñu ci yéen la rek ndeysaan. damaa feebar nii waaye dafa feebar wax ci émission bi. dëgg la sekk. waa yaay ju bëgg ñëpp. am ah, gis nga ni ngeen ko sañseele. Ah, noo toj na fi. ah yéen xale yi wàññi leen seen loxo nag. Ah, sañse rek lay def. ci goro la de. wala wallaay sekk dafa feebar sax billaay. ndeysaan nga jàppale ko ci noir bu la waa gis nga sama jeeg baa fa jaar de. <laughs> <laughs> waaw waaw kañ Seck yàlla na nga wér ak jàmm jërëjëf sekk man goro yu baax rek laa am dafa tëdd feebar billaahi wallaahi dafa tëdd feebar ndeysaan ndeysaan Seck jërëjëf yàlla na yàlla saafara yàlla fëgg sa bopp waaw yéen yéen yéen goro yu baax yu bëgg seen i njëkkee ndeysaan <laughs> bu may sañ si sax dañuy ñëw taxaw di day taxaw di xool ndeysaan yaay defal ni mu ngi tëdd feebar bi ma da génnee léegi maa ngi dem dañu mm. bëri jóg toog ndeysaan ne ma yaay sañ nga fekk yal na yàlla defal la jàmm amin mm. amin may la lu sedd guy ci barke yonent bi noonu la ñëpp mel nag bu ma génnee dan may photo ba damay fi may dem tey de damay tardé tey de doo lim bu waaw ankay <laughs> léegi dootuma ko nangu de nga toog di lim sa waa dootuma ko nangu <laughs> na yàlla def lépp jàmm waaye ba ca fin ba amin yaa rabbal alamin <laughs> ngaay bu defee 20 minutes nga xam ma ñoom dañ koy tàggoo 20 minutes yëpp 88 euh, la 628 14 13 dañu mel ne Astou Diallo Ndiaye Thiam wala Ndeye sama ñaari jeeg yooyu nga xamante ni ni ma leen dox ki démb rek jeeg bu baax ragal ragal gore yi ragal njëkke yi gisatoo sab goro nag te yaa ngi sa biir kër toog sa biir kër borom kër kenn sonaloo fa kenn jaaxalu la fa mm-hmm. su la neexee ba a faale njëkke wala nga bañ a faale doomi njëkke waaye tubaarkàlla macha allah man ñooy samay tànk ñooy samay gët damay toog rek yónnee sama xaalis wala sax man leen nangam laa bëgg ñu ne ma moo jarta fay mm-hmm. bu ci mel ni Asu Jàllo tey moo aye ah, di aawo jëmbataay aawo ci sa kër aawo ci sa dàgg la moo jaar fii ah, baax na yow bii rek xartum woo leen ko ci 77 372 26 78 77 372 26 78 te li ma defal la ma daaxal doomam sëy ba ñëw toog mu ne ko demal wétali sa bàjjen wératul nga toog ci wetam di ko dimbali te di ko jàppale loolu defe naa ni ku la ko defal desalatu la dara jàllo njaay caam yàlla na sa jàmm yàgg as loo loolooy mbaax nag wallaahi xam nga mbaax doomam a nga nekk sama kër de moom laa fa bàyyi léegi fa mbaax mm-hmm. fa mu fa mu fa affaire ba tànge waaw foofu la mbaax di feeñee d'accord que gis nga àdduna. Mhm. mbayang waaw rafetal yomb na. ndeysaan. diisal moom moo metti dëgg la boo bëggee fekk oyof nga diisal ko. waaw Serigne Touba woon na ba nit bay euh, lakk. Mhm. mu ne ñu ne ko lépp génn na. waaye ya diis àttanuñu ko mu ne ku diis da ngay diik. ndeysaan. te. waaw. can yeeg woyofal yeeg loolu yëpp. Mhm. li ko jiitu mooy jàmm. jàmm. jàmm am solo dëgg la mbay suñu yaay yi dañoo amoon jàmm dëgg la walaay dëgg la suñu dañoo amoon jàmm lay dëgg la dañoo dañoo gëmoon li ñu nekkoon walaay dëgg la mbay looy def te gëmoo ko bu boo nga teg ko fa nga teg ko fa waaw loolu mooy yuru yural jàmm waaw ñoom yural jàmm a ngoog da nga yuru yural doo ci yàgg te saa bu mënta boppam waaw ah bu boo ñu bàyyi ko fa ndax àdduna mhm. day dox mhm. doom yi dañuy ñëw mhm. sët yi dañuy ñëw ñëpp dañuy ñëw mais ne la na fekk lépp rafet dëgg la na fekk lépp rafet nañu rafet ci la can yi dugg mhm. ci la kër gi dugg mhm. ci la lépp dugg am na solo wax dañ koy dëxëñ rek macha allah comme yow tey nangu woo kii waaye yow la ngay defar ma wax sama waa tey dina dina de métti 88 la 628 14 13 man fin wu émission bi damay jug dem sama yoon bàyyi plateau bi allo salaamaaleykum <laughs> waaleykum asalaam wa rahmatullah sama sëriñ maa ngi lay ziar ah, maa ngi lay dégg maa ngi lay dégg bu baax salaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah oh là nañ ko xaarandi 88 la vingt 14 13 xale yi nañu gëm seen bopp. nga xam ne ku yàgg ci teen baak fekk la fa. te balaa ne nux-nux danaan war-war teyit nag eh, nga nekk ndaw nekk say digg diggi doole am na loo xamante ni boo ci engagé woo ëllëg eh, dafay metti ci yow wala mu metti ci say wayjur gis nga man mi toog dama daan toog. di lakk sama fataaya. Mm-hmm. yàlla xam na ko li may wax nii yàlla rek laa ko seedeel. bu avion rombee ma ne ko ndeysaan ay waay ku ma yóbbu màkk ba ma ñam avion dëgg la macha allah fa tabarakallah yàlla naa jëm mag bu ma nekkee mag ma dugg dem màkk mhm. ba dugg avion wallaay tey macha allah du ko lim waaye nag sant nañ yàlla ñam nañ ko avant sax màkka di jot dëgg la te loolu bu ñu gëmul woon suñu bopp jàng ba yor suñuy diplôme nekkoon ci société di liggéey ba mu yàgg ñu bàyyi ko fa ñëw teg fataay bi mhm. loolu yëpp duñ ci fekk mhm. fataaye boobu dañ fa bàyyi benn jour boo xamante ni dañu dem benn dëj ci la sunu buntu taxaw donc ku nekk ak sa nag waaye nag man jigéen ñi ci boppam jigéen ñi jël seeni doom di jël ay mineur def ci gaal yi ah. métti métti waaye kër gi bu mu tax nañu nañu teeluwaat nañu delloosiwaat xel yi <laughs> te xam ni biir réew mi boo fi nekkee bu fekkente ni looy dundee rek la waxuma loo am àdduna ak li ci biiram de waaye bu fekkente ni pour looy dundee rek la mën nga koo ñafe ci biir dëkk bii ba am ko bi ci des mooy <laughs> yàlla daf ma am ku ma booleel ku ñuy wax docteur buuba <laughs> mhm. ma Mabouba ma nga fële Lomé euh, di yëngu ci wàllu ay projet yooyu dafa am ku ma doon waxanteel kaf affaire projet ah mu paas ma docteur Mabouba te xaw ma ko yàlla mi ma tiim xam na ni muy congélateur buy jaay ay ginaar ak jën ak lépp man damaa yàgg bëgg jaay man loola nga ma jaay ko ma nga nekk sama kër ku dem da ngay gis tableau ba dëgg la te pourtant mënoon naa ne yàlla may na ma bunt naa lijjanti pour dem émigré ji nangam sanga wala di dem dem bitim réew di jëndi ay marchandises di ñëw mais dama ko réy ci sama kër teg sama congélateur jël samay jën ak sama ginaar def ci te loolu nag lépp ak waa marque gàdd ga docteur ma maa ngi lay kontaane bu baax a baax di kontaane Fat Diagne ak euh, sa équipe technique bi nga xamante ni ñoom sukkay na équipe yëpp maa ngi leen di gërëm bu baax a waa marque gàdd yu mel noonu jaay moom dafa am solo man bañu ma ku ñëw mën la jaaral fii waaw mais loolu mooy à partir de trois mille francs yow mën nga démarrer à partir de deux cent mille francs mën nga démarrer loolu mooy xam nga mère fii nii réew mi moom waaw ñàkk bañ a def dara rek fi nekk. waaye suñu ab laat Mbacke daf daan wax ni. Sénégal neex na de. ñàkk wu taa fer. te borom doo am dara nee na man d'accorduma ci loolu. dëgg la ku ñàkk di nga am dara. dëgg la dafa dafa fekk ni kay taamu moo fi ne. Mhm. waaye nag li ñu mën a liggéey ci réew mi tamit dëgg-dëgg bari na. Mhm. parce que soo demee bitim réew. bari na liggéey yooyu bañ Sénégal te boo demee foofa. moom nga fay liggéey. amaana xëy na turu maa ngi kaaw te boo fa demee di nga fa def ñaari ati yàlla yoo xamante ne loo am sa ndey la ko yónnee. loo am sa baay la ko yónnee na soo demee foofu li la tubaab bi di fay. xëy na duñ la ko fay fii te gaaw noonu. waaw mais di nga ba bari na loo bàyyi fii tey. boo demee fële loolu ngay liggéey wala nga liggéey sax lu ko gën a yées. dëgg la nañ il faut ñu gëm réew mi. ñu ndaw ñi. Mhm. jigéen ñi tamit ñu ñu war a xam ni. Mhm. jeeg bi nekk ci kër gi dem ba am doom. wax dëgg yàlla bu dëree. Mm. fay fay gorom jaar wala fa yaayam jaar. Mm. mën naa am mille sens pour mu jaar fa pour doomam tekki ci moo gën muy jaar ci géej gi. jëlaale doomam yóbbaale parce que wax nañ ni fan yi am na benn femme boo xam ne ci biir géej gi ci la accouché ci la accouché loolu tamit problème moo tax man la est léegi xabtalatuñ ñu nag affaire bi du naturel de ñu jël kii ci ligne bi naturelatul allo. waaw salaamaaleykum waaleykum asalaam wa waaw maa ngi lay woowee fii yëmbal yëmbal maa ngi nuyu waa yëmbal yëpp waa ngeen di waxtaane loo xam ne am naa ci xam-xam loolu macha allah ay ca bismillah ndax euh, bari na ñu dul jeex ñu may tàggu di dem dëgg la mais ndaw ñi moom mënoo leen a wax ñu toog fi mu ne gisatuñ lu dul dem dëgg la am na ñoo xam ne ci Libye fa ñuy tàgg mm. ñii euh, Maroc mm-hmm. ñii Mauritanie. ñu bëri mm. ñu ngi ci désert bi ñii ngi faatu ci ndox mi ñii ngi àgg. wallaahi dëgg la li mooy li xew ndaw ñaa ngi dem bari lool. Mm. Mm-hmm. yàlla xam na ko. Mm-hmm. ndaw ñaa ngi dem de bëri trop sax. dëgg la. waa kay léegi nag arnaque moom am na ci bari nag ñoo xam ne dañuy dem wii wiiri fii ay fani fan ñëw lekk seen xaalis jeex na kon ndaw ñi nañ nañ yeewu ci loolu. waaw arnaque mais gis nga fii Sénégal. waaw liggéey amu fi. liggéey amu fi entreprise yëpp tëj nañ. dëgg la liggéey. Mm-hmm. dara amu fi jaayee fi am. Mm-hmm. boo fi góorgóorlu ba am sas place ñu ñëw jaay la baadoola dëjërti la ne fii état da koo soxla. mbaa nga jaay ñu leb ko sonn. Mm-hmm. jeex na. Mm-hmm. yow nga nekk borom xam-xam. ah war a liggéey ci réew mi xam-xam bi nga jàng yëpp amul yéene bu ñuy am lu dul tuumaan la tëj la kasu génnee la réew mi nga nekk Qatar. dëgg na dëgg na nga nekk borom xam nekk fii ndaw yi am ci yaakaar. Mm. amul ci yow lu dul jaay la doole tëj la ci biir kasu bi oh. Ousmane Sonko. dëgg la lii ndaw ñi danañ ko muñ. doy na waar xaftal nag lii nii bi am ci réew mi ba kenn mënta wax. Hmm. Ah, moo am ci lii tax ndaw ñi di dem. kon gëm nga ni xattal la. gis man lii gëw ma ne du ak neen la de. ni nit ñi demee ah. nii tey nit ñi xam nañu actuellement ni dafa lëndëm. te yaa ngi gis yaa ngi gis nit ñi di dee gaal gu dem téeméer dee gaal gu dem juróom benn fukk dee te nga am na am na ñu may tàggu man leen ba leen dem gi toog leen mais gëmuñ loolu. dañ lay mere parce que loolu. dëgg la rawal dem lañ bëgg mais dañ leen xabtal mais réew mi amul. Hmm. liggéey am na sa papa toog nii. Hmm. ah nga war leen a joxu 1000 francs mënoo koo yor yoruñu tous xaalis xale yoratuñ xaalis dañoo sontu branché étranger yi sax lañ gën a respecté ci réew mi dëgg la mais réew mi ba pare suñu politiciens yi man faaliwuñ ñu géej gi waroon nañu ko mën a aar ba ay gaal du ci mën a déparé naan dañuy jóge ci waax hmm? waax yi hmm? naan dañuy dem Espagne hmm. mais ana sécurité réew mi kon réew mi tëral na leen pour ay gaal jóge fi dem ah. fi ñuy départ xam nañ ko nañ bàyyi jaaxaan yi nañu aar xale yi ay bakkan yu bëri ñuy faat ay bakkan yi bakkan danañ dem ba ci kanam conséquences yi ci kanam lañ koy gis li dem ci yoonu bees yi États-Unis bi kenn xamul nu mu toll lan dem ba ay ndaw dootuñ ko amati ah ndaw yaa ngi wàññeeku de doy na waar. boo jàngee ba yor say diplôme ku la booleeg man lañ xam. boo nangam. waaw gis nga liggéey da koy jox waayam bu ko jox sa waay. dëgg la boo ko joxee waayam dafay yàkkamti pour jëf ci résultat. dëgg la ci réew mi kenn mënu na solo jant ak ñeen la leen bu baax jërëjëf. mbaa mbaa xam nga ne bëgg naa nga jël numéro bi après ñu déggoo. jërëjëf. aywa waaw parce que bëgg naa la ci plateau bi 77 la 534 91 85. gis nga xale ñu ngi am wax lu am maanaa. merci beaucoup ma jaajëfal ko bu baax. mën na ma woo may ma tuuti ma jox ko numéro bi. parce que kii xalaatam fii foog mu ñëw ci plateau bi ndax xalaat yi dañ ko soxla ci réew mi. 77 la 534 91 85 dinaa ci ñëwaat après ci fin wu émission bi incha allahu taala su ko defee rek ñu xool nu ñu koy invité parce que. fi mu ne dañu toog wax lu am importance wax dafa jot. waaw dëgg la voilà dëgg la mais ci bari na toppandoo ngi ci. toppandoo toppandoo waaw. mbay nga may nekk yow ci kër koñ wala ma nekk yow ci kër. Mm-hmm. njaboot gi dañ leen di dimbali. Mm-hmm. njaboot gi dañ doo laaj njaboot lu mu amul. Mm-hmm. doo imposer xale bu yor jabaram wala jabaram lu mu amul. koo ko gis te yaa ko jur. xam nga sa jikko la yor day gis boppam. dëgg la mais boo wonee njaboot ni ko lii moo fi am. lii nañ ko bokk ba yàlla ñëw. dëgg la. waaye danga naan doomu mbayang dem na ci gaal yi. Mm. egg na. yow ku lax sama doom dafa dem ci gaal yi. <laughs> Mbacke Rasulullah dafa dem Tunisie jaar ci gaal yi dem. ah waaw yaa ngi mel ni ku ko yëg. <laughs> waaw daal man borom xam-xam laa njëkkee yow topp. non kooku kooku dafa doy waar. ma daal di ni doomu mbayang dem na yow doo dem. Mm-hmm. nga ni yaay nangam man gis naa ko jaay télévision jox ko doom mu dem ci gaal yi. allah te gi nga kii li mu wax arnaque bi. waaw mu ngi ci ñoom. arnaque gu xale yi. non non ñi ñi borom gaal yi. ñu ngi tudd ay capitaine waaw ñoo lay jël jëlee la yi wii barki dem rek gaal teer na amosis amosis benn géejawaay amosis gaal teer na fa te gaal ga fu mu jógoon ñu ne caaroy xaw ma ah, ci village yi noonu donc encaissé xale yi cinq cent mille ba pare daw ba pare daw daal di daal di teer ak ñoom ñu génn di topp ci mbedd mi di daw loolu lan moo ko gën a ñaaw ñaaw na nga jël xaalisu jàmbur génn dem moo tax ma ni xale yi mm. ku ci amati deux millions wala nga am 3 millions. projet yaa ngi seetal projet boo ko dugal nga toog ci sa réew. dëgg la ndax mën ngaa dem fee sonn. Mhm. mën ngaa dem ñu ñu ñu ñu retourner la. yegg yàlla na nga ñëw nga ñëw ak sa kersa. dëgg la te du ñëpp ñoo lay satisfaire. dëgg la mën ngaa ñëw fekk ku bon mu ne yaa ngi dem nangam sangam. am na solo te koo xas mu gis boppam. dëgg la góor kenn du ko xas. am na solo xale na ñu am beneen idée boo xam ne. Mhm. ñu dugal ko ci seen bopp. am na solo bu baax a baax a baax. Euh, mu ngi noonu xam naa bu fekkente ne am nañu hmm. kiiwaat rek ñu def ñu 88 le 628 14 13 xam naa ni temps bi daanaka 10 minutes moo ci des euh, tabarkàlla macha allah may kontaan bu baax a baax a baax ci ki nga xamante ni mooy Asou Diallo Ndiaye Thiam ni ma ko waxee euh, madame Jëmb Thiam aw buuru këram jaarati fii te nag wax naa ne bu fekkonte ni woon la mu jox sama armoire yëpp génne naa ko tey ji armoil ba dana rës. samay jeeg laa yor nag tey jii ku aaye wal sa moomeel ah. asu jàllo njaay caam moo moo aaye tabarkàlla jiitu ca kër ga nag te jiitoo foo waxi kese mbaa ruutale kese mbaa xëy di jadde jadd jaddi ci sunu kaw ni cerey delloo waaw ma ne ko mel ni cerey delloo ci sunu kaw déedéet tabaarkàlla macha allah yal na ko yàlla yokk jàmm yokk jàmm njabootam yëkkati doomam jox ma ne ma demal wéetali sa bàjjen mhm. ndax wérul te soxla na ko dimbali tabaarkàlla macha allah yal na la yàlla jàppale jàppaleel ma mhm. ki nga xamante ni nag euh, mooy euh, barham cosmétique ma nga foofu ca diwaanu yoof maa ngi koy nuyu bu baax a baax baax di ko ziar diggante yoof ak HLM ah, ba xaaral ma pare ci barxam <laughs> léegi ma ñëw ci yow ah, <laughs> voilà barxam cosmétique maa ngi koy kontaane bu baax a baax diggante yoof ak euh, fi nga xamante ni moom mooy euh, HLM Euh, di jëkk ko jaajëfal bu baax lépp lu la jaaxal ci cosmétique rek demal foofu ci moom waaye nag kenn du Mansour dama leen ko fa waxoon bii passé Mansour Bilbao dama wax ne da ngay yéeg ci sa perron li ko démarré ki sa salle jëm ci sa perron jaar ki sa chambre à coucher dem ba fi nga xamante ni mooy sa salle de bain ba ci sa cuisine lépp loo xamante ni danga ko fa soxla ci décoration ak lu koy jëmmal danga ko fay fekk foofu nga xamante ni mooy Bilbao nekk euh, rond point case bi boo taxawee boo nee Bilbao rek tabarkalla macha allah da ngay gis boutique ba Mansour rëkkal ma lu nag lu dégg jàmm loo xamante ni duma ma jóg ci di ko wax waaye mu ne ma pareegu ma ndax gis nga fi mu nekk nii même saag yi ah saag yi lépp ca Mansour nga koy amee la macha allah yegg leen rek rond point case ba ngeen ne Bilbao fan la nekk dañ leen koy joxoñ kon Mansour merci beaucoup jaajëfal naa la njaw Ndiaw Aydi <laughs> Ndiaw Aydi mais xanaa kontaan rek xanaa ma profité nuyu sama sama sama jabar wala sama rak Ah. fële ci Italie di ah. Faye mbay maa ngi koy nuyu di nuyu borom këram Modou Gueye euh, waaye nag du joyeux anniversaire Faye borom xartum yu rafet de waaw Faye waaw da ma ma ngi ci jëkkër de ma ngi Italie ndeysaan macha allah maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu nag maam Cheikh sama sëriñ boobu nga xam ne tey la anniversaire am ndeysaan maa ngi koy joyeux anniversaire di ko ñaanal mm. mu màgg ba ay waajuram jariñoo mm. njariñam mm. yàlla na ko yàlla defal waaye mère di nuyu bu baax a baax sama xarit sama doomu ndey Ousmane Dieye Ousmane Dieye waaw toujours bel fii ci Mbour jàmbaari Seydi El Hadj Malick Diop toujours bel waaw nga xam ne mooy Ousmane Dieye mi may wër waaw Ousmane Dieye di kenn nag macha allah waaw di kenn ci kër Seex Seydi El Hadj Malick ne leen ko def ca Tiwaawan ci gàmmu gi mhm. dans la discrétion dëgg la loolu raam na ba yegg sama nopp ndax njaw lu mu dégg ma yëg ko dëgg la macha allah ah, yal na ko ah, yàlla fay dafay nit ko baax di xale mhm. bokk ci xale yi nga xam ni mhm. dañu taxaw seen réew ñoom gëm ni ci réew mi mën nañ fee am dara loolu moo tax mu taxaw euh, bokk ko ak ñi mu ko bokkal nekk liggéeykat euh, baax nag lool maa ngi koy nuyu di nuyu doomu ndeyam Talla Gadiaga mhm. nga xam ne moom tamit kenn li ci ëttu maam Ali mhm. ñuy nit ñu baax di samay rak di samay xarit di liggéeykat nag mhm. parce que gis nga maire sunu réew mi liggéey rek moo ko mën a jëli ci situation bi parce que tey naam xale yi ñu ngi dem sëñ bi gën léegi wax na lu am solo mais nag tey maire quartier bi nga dëkk yow soo fa doon wut juróomi plombier yu qualifié dix doo ko am bu dee tailleur doo ko am. Mm-hmm. bu dee mécanicien doo ko am. Mm-hmm. mais pourquoi ñun ñu bëgg a démissionner bàyyi suñu réew dem ci beneen réewu jàmbur. Mm-hmm. mënatuñoo am ay tailleur mënatuñoo am ay mécanicien métier amatul ci réew mi mais loolu il faut ñu ose pour wax ko parce que gis nga. politiciens yi ñoom ñëpp a yem classe politique bi yëpp. kenn génnu ci ñoom ñëpp ku ci nag sa intérêt personnel. Ah. moom nga jiital soog cee teg réew mi. loolu nag ñun waruñu leen cee topp ñun xale yi parce que waruñoo mer noonu. mer genn mer gi ba sànq suñu réew. Mhm. parce que réew mii fi mu toll nii. Mhm. wolof nee na war ma sa ndaw yi tey ma wax la sa magi ëllëg. Mhm. ndaw yi tey ñii ñooy doon magi ëllëg yi ñi réew mais ñooy tabaxi réew mi. parce que ñi fi jiitu woon dem ba installé gouvernement. administration installé lépp mais ñoo ñu bu ñu defal lii est-ce que ñun nañ fekk dara. noo gars yi il faut ñu ñu delloo si xel yi. ñu toog pour suñu réew mi ñu seet fu ñuy jaar pour defar ko. parce que réew mi ku fi di nga am dara ñun ñii ba ñu juddoo léegi li ñu génn réew mi bariwul te mus ñoo dem pour émigré ji mais ñu ngi sant yàlla bu baax sant bu baax lan laay def man bu ma xëyee yaa ngi may tooñ léegi ni ma jaw ay bu ma xëyee damay yor samay saak def samay parasmo di wër di jaay mais bari na ku toll ni man yaa ngi liggéey ci média jeex na bari na ku toll ni man tey jii nii ci mm. réew mi mm. koo ci wax ne ko kaay def bitim mbagg mu bañ man ci laa yor ci sama kër mm. te dama cee fier aw ma ci benn complex la comprendre te du tey bu ñu sañse noonu doo ma dàq sañse doo ma dàq wax lu baax. gaa yi il faut ñu gëw réew mii. maa ngi nuyu sama rakk ji nag sama mbokku taalib yi mhm. Maguette Gueye. Maguette Gueye bu soxna Ami Cheikhou Sy. muy sama rakk bi sama xarit maa ngi koy. waaw léegi nag léegi nag Mbaye ak May ma mayul sama yaa ci des ay man maa ngi commencé ci jaal maa ci yem. <laughs> di nuyu borom këram. mu nuyu toog di nuyu njabootam gépp duma leen lim. Mhm. di nuyu ña ca France ak ñi fii. di nuyu sama wàkk nag sama goro yooyu woote mm, léegi ñu woote léegi Saarata Yaasin euh, maam Bousso <laughs> euh, kii jabaru Badu nu mu tuddati sax macha allah euh, waaw maa ngi koy nuyu di nuyu Marème Gueye mm-hmm. jabaru si Ahmad Bamba di nuyu nag si Ahmad Bamba mm-hmm. di nuyu baay Moor seen xalifa waaw du leen lim damay jël nuyoo bi yëpp mm. teg ci loxo baay Moor mu joxal ma leen di nuyu sama doom yu jigéen yi aji yaasin moom woote léegi mbay dëgg la yow yow tegoo ma dara lu ma metti di nuyu ndey sofeetu mu tuddee sama yaay alimatu saadiya mbay di nuyu sama jabar sama do sët bi woote léegi <laughs> mooy ma pam màggen mbay ak <laughs> yaasin mu ndaw <laughs> di nuyu njaboot gépp seen saali woog liir yi sa je m'attendais de bettu ma nii de dama leen di ah, nuyu de xam nga lu tax xam nga lu tax bu ko yokk cere da ngay dolli ñeex te nag njaboot gi dan maa bëgg. dañ laa bëgg teral ba ci sët yu ndaw yi. ku la may bët nga xool fa ko neex di nuyu sama yaay Mariama Ndiaye <laughs> kooku mag la. jërëjëf ñu bokk ndey ak baay mais sama yaay la di nuyu Seex du ko de ca Mbuur. jërëjëf kooku ma tudde doom El Hadj Malick nee na nga nuyu ko vers. di nuyu Badou. jërëjëf Aline mii ma indi <laughs> léegi El Hadj Malick maa ngi koy nuyu ndeysaan Aline mii ma indi léegi. waaw Aline Mbaye taal bi Serigne Bamba. waaw ak rakkam doon nuyu. Mbaye Mbacke Mbengue jërëjëf ma koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal équipe technique bi équipe technique bi nga xamante ni ñoom laa àndaloon ngaay ak euh, ki nga xamante ni mooy mbaarak ak yaayam euh, ma nga fële ca toolu Abdoulaye Wade maa ngi koy nuyu bu baax mère aw Diallo di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa àndaloon ñëpp à la régie parce que nag wax naa leen ne toujours sunu patron dafay fexee di moderniser modernisation bi nag dafa jëm ci léegi su ma toogee duma ma gis caméraman du ma gis technicien son du gis kenn waaw ah, damay toog di wax nii rek def lu ma sax non Ndiaye Wuduru Ndiaye ba fawul toggantuwul dafa taal elage tey nii maa la waxal mbaax ko boo waxee ci climatiseur yi eh. ba pare boo wutee climatiseur bu baax ba pare Ndiaye toggantu woo da ngaa da ngaa taal boo toggantu woon du mel nii kon gars yi dañuy toog fii di caméra te sutse tabarkalla ak réglé son bi waaye moom dafa fexe ba lépp mat tabarkalla kon ñu ngi koy nuyu suñu directeur bu baax a baax di nuyu njabootam gépp nuyu waa Yoff gépp nag maa ngi leen di nuyu duma leen fàtte bu baax a baax taxawaay bi bari ki démb sama kër rafet na ndey ramaloo ndand mbaw nday mbay euh, ki nga xamante ni mooy Fatma Ndiaye may ma Maymuna Kor Babacar ñoom ñëpp daal maa ngi leen di nuyu di leen kontaane na bu Diène Coro Ndiaye maa ngi leen di nuyu sama assistante yi ma indi sa doom ji nekk état sa doom ji nekk bitim réew waaw El Hadj Malick El Hadj Malick ak Juma Juma ak Juma jabaru Badu voilà mu ngi noonu ma koy jaajëfal bu baax a baax jaajëfal Fat Thiam sama rakk ji tabaarkàlla moom tamit topp ci man sa sama rëkk te du ma rëkk tekkil ma sax ak ci accessoire yi tey jii ne ma tey maa lay jox ay accessoire ba pare des sama kër ñoom it dar ma xam nga man fi mu ne neexatuma dëkkal dinaa tuur dinaa këpp dina dinaa fakkastalu dinaa mbëkk dinaa def lu ma saf dëpp yére yi waaye sama mbokk yi darma ne darman ko barki yonent bi bu ma kenn dagg mère dagguma la de ah, waaye sama dijaa ji alaaj ma sëgal jàmbaari séedéer mbokk yi fi amaani laa fi amaani laa ngaay <laughs> xanaa jeex na <laughs> sant yàlla rek <laughs>